dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaaru yu wér te leen ngir dara bañ leen raw maa ngi leen di nuyu mbokk internet info 221 di leen jaajëfal bu baax nag àdduk yéen ci xibaar yi jëm rek ci wàllum kaaraange Bassirou Diomaye Faye ak kii di Ousmane Sonko mission bu jeex ci élément garde rapproché yi nga xamante ni ñoom ñoo doon sàmm kaaraange Bassirou Diomaye Faye ak ki nga xamante rek moo di Ousmane ñoo ñooñee sax di ay garde rapproché ñoo xamante ni ñoo doon ànd ak ñoom fépp fu ñu doon dem ngir sàmm seeni kaaraange jamono ji nga xamante ni ñu ngi ci kujje gi maanaam opposition bi garde rapproché yooyu fas yéene nañu jébbal leen ngay nag ñi di force de défense et de sécurité yi ginnaaw nag ba ñu falee Bassirou Diomaye Faye nag mu nekk njiita réewum Sénégal niki dimanche bi ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru avril loolee tamit dafay bokkaale Ousmane Sonko daal di bénéficié wu nag ci boobee dogal ndaxte moom mile moo nekkoon njiitalu opposition rawatina nag parti Pastef bile état bu Sénégal nag dafa jël dogal jébbal lenge yëpp lu jëm ci wàllu woowee source àddi ñu ko xamal ci xetam bu njëkk niki tey ji ci al alxamis bi nee ñi di groupement d'intervention bu gendarmerie nationale ñoo fas yéene sàmm kaaraange Bassirou Diomaye Faye ak nga xamante rek moo di Sonko journal bi di préciser bokk na ci petite surprise bi nga xamante ni defal nañ ko nag kii di Ousmane Sonko jamono ji nag xamaguñu fonction bi nga xamante ni Ousmane Sonko dina ko yor ci gouvernement bu yees bi waaye rek lu ñu leer ba leer ne moom faw rek mu am ci pàcc boo xamante ni moom moo daal di occupé nekk wet ci ki nga xamante ne mooy Bassirou Diomaye Faye nekk njiitaru réewum Sénégal jamono ji ne comme noo ko déggandoo ñi nga xamante ne ñoo nekkoon garde rapproché Ousmane Sonko ak kii di Bassirou Diomaye Faye fas yéene ñu jébbal le ngay groupement d'intervention de la mori ñoo fas yéene sàmm lépp lu jëm ci kaaraange ki nga xamante rek moo di Bassirou Diomaye Faye jaajëfal leen mbokk yi di leen wax nag ngeen di woyal nag di abone ci suñu chaîne bi ngir daal di jot lépp lu jëm ci xibaar laata dinañ leen ko bantuwaat ci kàllaamay nasaraan fin de mission pour les éléments de la garde rapprochée privée de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko. Les gros bras qui veillaient à l'intégrité physique des deux hommes lorsqu'ils étaient dans l'opposition ont laissé la place aux éléments à des corps dédiés aux forces de défense et de sécurité. Pour le président Eli, ce n'est pas une surprise. Il est naturel au vu de la charge suprême qu'il assume depuis son élection le 24 mars 2024 que sa sécurité soit à la charge de l du Sénégal. Dans édition euh, de dans son édition de ce jeudi, Source A révèle que ce privilège est étendu au président Pastef. C'est maintenant que le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale qui gère la sécurité du Sman Sonko précise le journal. Il s'agit aussi d'une petite surprise. Le leader des patriotes n'occupant pas Pour l'instant, une fonction officielle connue, mais cela ne devrait pas tarder si l'on en croit. Sur ce, elle revient toujours et donne l'éclair que Ousmane Sonko va avoir un rôle dans le nouveau dispositif qui sera mis en place. Donc, c'était tout pour les informations. Merci de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, restez toujours connectés à notre chaîne pour pouvoir euh, occuper ou bien écouter toutes les informations qui se trouvent au Sénégal et d'ailleurs.